salari jiin bismillaay ma dee ci door maam góor njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku mi soow booba danga siiw ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te lay bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon tey Sénégal yëpp dañ leen doon xaar ñoom ñaar Siteu gars yi dañoo xam ni yow mii ndaanaan nga ñu jox la cër respecté la waaye jox la koo xam ni keroog ba ngay bare li nga xam ni moom moo di préliminaire mi ngi toj fii nga dem ba garab yi fekkante ci kaw tay ngeen dajé ci kaw nga jox ko respect waye dafa melni ni bi dang ko ñaanon ba bés bi tay yeen ñaar ngeen dajé no wajalé bés bi ndax lepp yemb na dafa melni ni at ak lu tek wala ñaari at yang koy wajé waaw dañuy sant yalla dañuy sant yalla di nuyu ñu fi nekk di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu yaay donte ñu ngi fi wala tamit ñu fi ñu ngi leen di nuyu. di nuyu képp ku nekk ci stade bi ñu ngi lay bëggee di lay siyaare. waaw di wax ne daal làmb ji yàgg na yàggul su ma nee yàgg na bañ ko jàppee yàgg na yàggul ñun lii lañ gëm mooy suñu live mooy suñu lépp comme que keneen ak keneen nu muy xëy di nekkee si leneen kon waaw dañuy sant man sant rek laa ko jàppee waaw mais lu mu gaaw a ñëw parce que maam Serap Fall ñu bëri ko xooli leneen moo ñu gën a. mais Siteu xam nga kii ndaanaan bu ne am na ak moom ngoon fii ndaanaan bu ne yëkkati na la def la fii. lu leer nañ ndax ñun dañuy doon toog di setan télé ba yàgg ñu ne nañ dem seetaani ñu xam ni dafa mën bés mën takusan mën timis mën gee fu mu guddee rek fu mu yàggee rek am na loo xam ne moom lay génnee ndax yow waajal nga loolu yëpp man de sam bopp laa xam soo may wax boo ma tagee wax ma sam bopp ma kontaan mais wax ma sam bopp ma dégg soxla sa bopp yow. waaw ngi ñew ci yow. mais mom xamalo ya. hmm. ko dara. sam bop la gëm mom lay topato pour l'instant. lu mu la mën wax si combat bi. damay assurer képp ko xamantene yang ngi may bàyyi xel man dama lay assurer ne man combat bi dama ko fonk ki amatuma lu ma koy wax wax naa ko ñaar yoon ba ñetti yoon ki ndaanaanam bu ma taxay fii di wax yow du jeex mais eh, man gisumako mom man li man la laa gëm man loolu lay ñaan yalla ñew indi ko kii dafa gëm combat bi da koo gëm mu jaral ko lu nekk wo ay mbokam wo ay nitam mu jaral ko mu def ay ay réunion yo xamantene wo ay mbokam ak ay mbokk bopam kon ki bu wowe ay mbokk bopam man dina wo sama nit bo man mbeur askan la man ñëpp ma bëgg parce que mam serval man ñëpp ma bëgg parce que du def luñ may xébé mais lima déssé ci combat bi ngir yalla nañ ma mo ma ak mom buñ ma ak doomu adama yi parce que fofu rek lañ ma mëna jaar jaxassé ma ak nit ñi pour nit ñi mere ma mu ñëw ki na gëm bopam ñëw ñu bëree ci fulla ci fayda parce que serafal papa lu mu xey di internet, ma xey internet lu ko raw papa lu yaxam mën mom mi di mag man may xalé parce que alcorane sama yax dina mën lu ko raw billaahi wallaahi wa kii lu mu si bañul bañu ma bii bu laajee bakkan ma joxe sam bakkan barke alxuraan lu mu ko bëgg benn fan ma bëgg ko gën ko ko bëgg foofu loolu nag lay wax maa ngi woo samay mbokk xooyaw foole séeréer nu xanaa leyaw séeréer nu xanaa leyaw séeréer mi xooyam na combat fani ke ka xatum na jongwaar a ñoojoor bo fayaa ko mi xooya foofu xooyaan dunale fop fof ngaran ci musidɗam samba dia jofiyor fimla o gore mi hoya fof fajud palmarin wasimo leng poɗon sikkam mi o seere refum faaloyke ngara mbo janke jena eyi eh. kii li ma ko wax dafa leer ñun ay séeréer lañ ñun bëre mo nekk suñ deret duñ ko dañ ko daj li suñu natulo waaw ma ngi ñaan yàlla nag ndam rek tam rek Papa Sow maa ngi lay nuyu di la respecté dégg nga li nga xamne mom la cité wax ma bàyyi la nga ak wa Sénégal ndax ñëpp ñi ngi tok di la seetaan ba nopi nak ñi sogo a wax. xana ah, xanaa nuyu waat rek wa waaw waaw di nuyu kilifa diine yëpp ci Sénégal fu kilifa dina nekk rek maa lay jaajëfal ak kilifa aada yi kilifa yi toog seen télévision di ñu seetaan di ñu ñaan ñëpp yàlla ñëpp am jamm yalla Sénégal am jàmm. Boubacar yow un grand monsieur wala wàllu commencé ci wàllu combat bi doomu lay Abou gay Serigne Thiaré Faye dëgg la combat Sénégal ñëpp dañ ko xam muy ndaanaan Sénégal ñëpp dañ ko respecté ndax bu nee Siteu mooy bëre kër yi kenn du génn dañuy toog si seen biir kër ñi am paas teel a jënd seen billet dem esat ndax moom képp koo xam ne lang naak yow ci takkusaan sa takkusaan boobu day metti say mbokk dinañu tiit say xarit dinañu tiit say dëkkandoo dinañu tiit waa réew mi dinañ la tiital ndax di nga génn ci combat boobu ndax yaakaar nga ni le premier Siteu mii di nga mën a génn ci moom Papa Sow. waaw Siteu champion la daa prouvé prouvé ak ma ma ne ko Siteu champion la daa bëre prouvé ba mu ñëw egg fu ñëw war a egg ndax fii place bi kenn du ko kenn du ko maye dañ koy jaay fam prix c'est le prix ba tax na maa ngi ko jox cëram bu mat sëkk champion la war a dajeeg champion maa ngi ko jox cëram bu mat sëkk waa nekk si li ma war a nekk rek. Uh-huh. yow da ko jox respect non man doomu aadama yëpp laa jox respect respect total kulli doomu aadama rek jox naa la ci ak foo bokk ak foo féete Pape euh, xam nga le premier combat bi dafa yàgg waajal nga waajalaat far corona bi ñëw jaar ci biir moom mu waajal waajalaat fu mu nekk nii dafa mel ni li ci des bëreetul ay fan dong ci des le premier ngeen war a sëgg bëre tey sëgg ak sëgg bëre ak Siteu réew mi yëpp xam nañ ne neexul xam nañ neexul neexul tëgg bëri ak Siteu neexul waaye waaw ah, Siteu champion la champion bu mag la man nangul ko lépp nag yëkkatil micro bi moom fu mu taxaw it nangul ma sama lépp fu ñu wax mu ne kii dafa mën a bari dafa mën a xeex bi may ñëw tey di séntu Siteu bu ñu fecc maa koy xool leen rek laa seen inquiété wu doole te kii leeral maa ko gën a pare Siteu yaa ko gën a pare dafa fecc ma xool ko mu leeral maa ko gën a pare kon dama koy daal incha allah billaay wallaay billaay wallaay taalaay dama lay daan parce que alxuraan li nga doon ragal ci moom laa gis ci moom li nga doon ragal ci moom gisoo ko ci moom gisoo ko ci moom tax dama koy daan le premier incha allah moom nee na bu jaree bakken sax da koy def bakken dala koy jox bakken xam nga ci li nga koy commencé mbër bu jël combat te boo yéeg fi sànq yow boo yéeg sànq li fekk seen podcast dafa goldeer li fekk nga xam ne ñii dinoo toog noo ndër moom fu mu sama tànk yi pour gën ko liggéeyaat ndax ma lii foo ko jëlee mooy noonu. tegal sa tànk ma xool non waxatuñ ko dafa fecc ma xool ko man ma ginnaaw mu fecc. Ah. sama xel gën a dal xanaa mu ne dafa fecc xelam gën a dal mu xool tànk Siteu ne ko Siteu demal nga liggéeyaat say tànk Siteu lay toll ci loolu. ขาก็มองคนเล็กได้ละเชเขามาได้ฟังคำเขามาได้ฟังบุกเมี่มันแต่มาเราว่าไงคีคียูมุสกล่ะยูยอ้นนไอ้คุมมิวนิเชันไอ้ขจีไอ้ตอนโดไอ้รับมอสมันเนคุมมาชิลลุคีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าบิลลาฮิวัลลาฮิวะตาลัยมันว่าหุมาบิลลาฮิวะาหุมาวัลลาฮิวะาหุมามันว่าถุมา damay ñaan yàlla mais dama la ne man non incha allah moom nga war a njëkkee si lépp mais dama la bëgg a xamal benn affaire gis na ñii xamal lañ am xamal lañ am si combat bi Papa Sow ku baax la Papa Sow kuy jël référence ci communication jël ko Papa Sow kuy jël référence si maanaam mbër bu am respect jël ko mais ñii xamal la ñuy wër pour jaxasamaak àdduna xool luñ may ñaanalee ñuy dog ma non non grand ñëwal nga indi sa fula ma indi sama fula barke alxuraan yow loo ci bañul bañu ma ci dara yow yow xool nga ma yow man ni ma guddee yow xool nga ma barke alxuraan yow bu ma la tàncee non mënoo ma man damay woo àdduna parce que xale laa te bëgguma topp sama jeunesse bugguma topp mbooloo bi topp sama ginnaaw wallahi maa ngi ñaan ci Baay Faal bi may jéem pour doon ko maa ngi ñaan képp ki góor yàlla nga ma ñaanal parce que maam Sera ma fekkee bis bi moom fekkee ko jàmm maa ngi woo samay mbokk di woo ñi may jàppale surtout fou de poids lourd Mansour Diongo maa ngi lay woo pour nga jàppale ma di woo madame ki nga xamante ne Aminata Fall Tall FAO maa ngi lay woo sama yaay bi di woo sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke nang ma jàppale ci combat bi di woo Diamaguène banlieue bi ak li ko wër lépp yëmbal ma Massar buun parce que maam Serafal parce que sa maa ngi ndax leer na ma leer yàlla kii fa mu dëkk maa ko ba fan billaahi santa bañ na nag foofu la dëkk bàyyi naa ko ay mbokk boppam mais billaahi kii seen biir kër sax am naa fa ñëw bëgg euh, Papa Sow ah. nga Siteu mi ngi woo waa parcelle sa biir kër sax. ñu nekk sa biir kër nee na fans yi. mi ngi sa biir kër. waaw moom mooy sama premier fans da nga xamul loolu. déggu ma moom mooy sama premier fans. Siteu mooy sa premier fans. léegi nee na man référence laa. yéen a référence si man ki wax loolu rek mooy am na soppi si yow da ngay boo bëggee di la estimer dama taxaw ma ne Boubacar tu es un grand moom lu mel ne loo xaat mooy am na ci man ci moom la njëkkee. léegi nak man loolu motax man bëgguma def lu may xébé mom nama ma bàyyi ñu ñëw bëri rek bu dee def may bàyyi ma dem bu bàyyi ma dem buma bayal ma dem man damay agressé de dem limay may def li fulla ci fayda dem sama yoon barka mam Serapha. bëre ci fulla ci fulla fayda ci jom man amateur bu ma seetaan kontaan man bu dé dina dugg ci digg geew di am lu may tiit non may bàyyi bëre. man xamuma loolu man jëf jël xam liggéey rek laa gëm. mais mais papa Sow tam du tiit de. waaye kii di jàmbaar mais kii lu ne ñàpp la xam nga ñàpp bu naaj bi ñëwee day wàccaat man lu ne nder laa loolu du deex kii bëri naa ko deuxième combat muy bëri grand combat ba tey yàlla defal lii ndamoo ma da ngay correct grand mais yal na ko yàlla jàppale moom. Mm. yal na ko yàlla may gudd fan. Mm. ambition yi mu am ambition yi mu am ba mu des combat bi le premier août. Mm. yàlla naa ko daan la premier août ambition bu mu am yalla réussir euh loolu ñaan la taxawal man man man man dam bu mu jubi rek loolu ñaan la mi ngi lay ñaanal ñaan ne neel na la dan le premier août waye sa ambition ne continue kon carrière bi dal ne continue la lay ñaanal fu mu nek ni wa man bala may tontu damay profiter di gëreum président équipe Jambaré sun académie ko tek ci loxom di nuyu bureau bi yépp di nuyu le doyen Balla Diouf ma andal mu bay yitteem ay ñoom Ibulaay Balla.

ñoom ñoo di waa jàmm gën àndandoog ak waa parcelle 1 ba 26 àndandoog amateur yi kon nag mbokk yi ñu ngi woon en direct sur ITV ah kon nag mbokk yi waajal leen ko le premier août lay doon àndandoog la banque agricole àndandoog partenaire bu Pape Abdou Fall yëpp merci à toutes et à tous ciao et à très vite. incha allah. salari jiin. bismillahi ma dee ci door. maam góor gi Njaay fit maram jéen bàyyi maam madam njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaala yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti laa ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari te lay baree bari lay baree bari te mañana.